parce que li ñu bëgg mooy am intercommunalité Dieguem mooy communauté urbaine de Dieguem loolu la ñuy bëgg moom la ñuy commencé di waxtaanee euh, sunu xarit yi nag jàpp si bu baax waxtaan boobu li ko lal nag mooy échange d'expérience parce que gis nañ ne ci caajaay ñu ngi am dispositif bien que dispositif bu embryonnaire la pour ramassage ordure ñu ngi gis ne aussi loolu mu ngi am sanjara, mu ngi am feneen donc ñu ne xaaral ñun ñu xool suñu expérience yooyu nan lañ koy def ba dajale ko ba bu ñu suñu intercommunalité li muy am comme objet social mooy mu jàppale ñu ci ramassage ak traitement des ordures loolu nag moo ñu permettre tey ñu gis expérience bi nga xam ne am na si Podor expérience bi nga xam ne aussi euh, euh, Grand Paris SO mu ngi koy doxal ci biir ci biir euh, département des Yvelines ñu ne xaaral ñu xool loolu ba xam nan lañ koy defee pour xool ñun fi ñu bëgg a dem mooy boole suñu ay doole boole suñu ay xam-xam boole suñu ay xalaat boole suñu ay ressources pour doxal li nga xamné nak nag acte trois daf ñu ko andil comme opportunité manam dajalé suñuy xam-xam ak suñuy xalat ñun ñi nga xam ne ñoo bokk même aire géographique pour ne pas dire aire socio-géographique nan lañuy def ba nga xamné euh, développement territorial bi réalité lay nekk ci suñu gox ak suñuy gox goxat mbari bëggoon wax jusque ñun à Sandiara euh, initiative moy li ñu woowee intercommunalité intercommunalité nak dafa bëri bëriwul Sénégal parce que commune ku ci nekk da ngay bëgg liggéeyal sa bop euh, te xam ku ne xam mbolo moy doole alors la initiative bi nga xam euh, mon frère euh, ami euh, maître Youm justement mon ko avec ses amis alors dafa nekk initiative bu baax pour ñun ñu And def li intercommunalité manam lu toll ni mbalit ñu bol ñun ñëpp di ko ramasser ndoo xam ngeen ne Sandiara commencé nañ ko depuis trois ans am nañu oto mbalit am nañu ay bac à ordure am nañu même une décharge boo xam ne hectares la maintenant dañu ne loolu yëpp ak caaje ak yi ñu am pour mbalit mi yëpp li ñu bëgg a mu nekk un seul service bi ramage dans toutes les trois communes loolu vous êtes d'accord que masta am fii en tout cas dans la région de Thiès et dans le département mais lima ma doon wax légui moy bëgg ñu yem fofu en fait parce que soo demee intercommunalité yeneen réew yi day couvrir domaine yu bëri ñu ngi xalaat éducation ñu ngi xalaat aussi agriculture ñu ngi xalaat aussi affaire euh, santé donc yoy bi nga xamné suñ suñ ko bolé suñ ko lëkkaloo ci suñu commune ñetti commune sa sa saa sa saa Diaye ak CSM fogg nañ ne day gëna efficace te dina gëna créer emploi dina gëna créer ay ressources dina gëna créer PIB mu gëna yokku alal bi gëna yokku yokku et également que euh, zone zone boobu ñu nekk dafa am ay potentialité économique donc lool vraiment la bëggone wax que ñun en tout cas. parce que xam ngeen né euh, problème mbalit du problème mu commune rek moko ko mën régler du problème ñaari commune même à l'échelle départementale gis nañ né euh xex bi mën na weesu fofu pour en tout cas euh problème bi mën a gën a euh, rëy gën baax kon ci cadre bobu motax ñu daje fi tay and ak suñu xarit tubaab

xam nañ fan lañ war jëm xam nañ naka lañ fa war a jëmee kon defe naa ñaari bés yi liñ ci jàng bëri na trop